asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu nun waa daara Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñoo leen di dikkewaat tey jii waxtaan woo xam ne mu ngi bàyyi ko ci boroom xam-xam bu mag ñu di ko wax Serigne Sam Mbaye ñu fekk ko ci diggante yu xat waaye teewul mu nangul ñu waxtaan wi waxtaan wi nag mu ngi jëm ci ñetti laaj bi ci jëkk moo di sëriñ bu mag bi li nga xam ne noonu la përale dund euh, yoonu tasawuf ak li nga xam ne noonu la ko noonu la ca doxee moom ci jëmmi boppam ñaareel bi mi ngi jëm ci di yoonu murit njariñ li nga xam ne moom la indi jëmale ko ci képp koo xam ne doomu aadama nga te nekk ci kaw suuf ñetteel bi mu ngi jëm ci ñaari rakkaay yi nga xam ne bii moom la julli woon ca bureau gouverneur ca Ndar te ren ñu di ko màggalal téeméeri at yi ñetti laaj yooyu daal moom lañ doon laaj sëñ Sam bëgg mu tontu ñu bismillah rahmaani rahim kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu am solo la lu jëm ci tontu rek ci loo ci xam ne jamono bi may na la ko xataay bi ah nga xam ne moo di dund Sëñ ci wàllu li ñuy wax tasawuf wàllu soufisme nekk na loo am solo tàmbalee nag ci suñu juddoo ñi ko njëkk a jàngal yëpp <coughs> waxtaan nañ ko ay yoon soxla wu ci dellu mën nanoo xam ne rek ne maanaam kat njëkk bi ñuy wax tahsin ni ki dajale xam-xam bu mat sëkk ci wàllu diine ba li nga war a xam lépp nga xam ko ba mu ko defee ba noppi dafa sàkkoo géeju itam ci xam yi lislaam yépp moo di jàng ci téere yi ni ñuy jàngale li ñuy wax dajale li ñuy jàng fii mu wër réew mi seet jëmm yi nga xam ne ñu ràññi ko lañu ci wetu xam-xamu zahir ak xam-xamu ak mbiri wird ak mbiri si karturu yàlla loolu taxoon mu dajale lu bari nekk nit ku yéeme ci li ñuy wax culture maanaam saqafa bu kawe mu teg ci beneen jikko beneen qualité melin woo xam ne wu am solo la ci nit mu di ak njàmbaar njàmbaar ak fit wu mat sëkk akum dogu ak takku loolu lépp nag ko laloon te tàmbali ba ba ci mujj gi moo di ngëm bu dëgër boo xam ne dara mënu koo yëngal lu toj montagne yi mënu koo yëngal ak li ñuy wax choc moo di cofeel sopp suñu borom sopp bu tax lépp far ci xolam ba sopp dara mënatu la am ci xolam lu dul yàlla mu nekk kon itam nit ku ràññiku ci lu feeñ ci lu ñuy gis rek ci moom ci nit ñi mu boole ci ittewoo nag mbiru jullit ñi di seet lépp luy wéral seen diine lépp lu leen di tax a xam seeni warugar lépp lu tax ñu farlu wattandiku lépp luñu war a wattandiku téere yu bari yi mu taalif bu ci nekk dafa seet ne taalif bi daal war na ndax benn mësoon nañ cee taalif bu yàgg waaye téere yooyu nit ñi wan nañ ko gannaaw ndax dafay téere yu gudd indi yoo xam ne aaju woowuñu ko ba tax nit ko gannaaw mu tànn la xam ne mooy li ñu war a xam dëgg ci bu nekk moo tax mu taalifoon téere yooyu fànn koo xam ne gis ko ne liñ ci taalif doy na ba nit ñi aaju ko ndax moom daawul taalif ngir wane xam-xam wala ngir leen ndax daan dimbali nit ñi bëggoon ñëpp xam seen diine te ittewoo ko bu nit ko xam ne ba mu mattalee boppam ba mu mottali ko ba mat matal boppam ci jaahir ba pare ak ci baatin dafay matal képp ku ko topp xam ne itam ne xam-xam kat wasiila la du raaya maanaam moyen la waaye du xam-xam li nga xam ne fa la nit ki war a àgg yem fa xam-xam day jumtuwaay boo xam ne daf lay dimbali ca la ngay wuti la ngay wuti nag mooy lan mooy ragal yàlla topp ko xam ko ci xol bu set boo xam ne yàlla du ko du sa bokk ak lenn ànd ak bëgg ko bëgg gu tax doo mën a teqali ko moom di ko xalaat di ko jaamu di def lépp loo xam ne da yaakaar ne dana la may ngërëmam boole ci takku googu moo xoon ak dogu gi ah, yàlla nag boo ko xasee ba mos dafa neex ba doy waar mboolem luy xeetu bànneex bànneexu bët bànneexu xel bànneexu xol bànneexu yaram lépp lay boole boo ko xasee xam nag daf lay jommal ku jommi ci yàlla nag dootoo jommi ci lenn dara mënatu laa jommal boo ko defee yow mi jommi ci yàlla dootoo gis àdduna doo gis ka doo gis daraja doo gis bànneex doo am bëgg-bëgg benn budul yàlla xam day mel ni yow nekkatoo fi keneen a fi nekk koo xam ne yàlla kese la ni ko xadis bi junjee وتخ Cheikh Ahmad Bamba ne wa xaysuma taxaf ilaahaka al ahad yaxafka min xawfikahu kullu ahad waxtu woo ragalee sa borom dëgg dëgg ragal lépp lu dul yàlla daf lay ragal waaye boo ragalee lenn lu dul yàlla suñu borom bàyyi la ak sa bopp ak la nga ragal nga nekk ci sa wattandiku bopp ak sa pexe bopp naka noonu it soo bëggee yàlla dëgg dootoo bëgg leneen ndax ku ko mëcc mu saf la caf ko koo xam ne leneen dootu saf nit kooku nga xam ne nag xam na boroomam te jublu ko di ko jaamu yëpp ko yëpp goo xam ne day mel ne day jàndoog moom li ñuy wax complexe wala ñeetaane wala réccu dootu am place ci sa xol doo yëgati lenn ci sa kanam lu dul yàlla lu lay ëpp doole ragal wala loo am loo bëgg wala lu lay féete fenn loolu bokk na ci jàngale Cheikh Ahmadou Bamba xam le ne nit li ci am solo mooy inna akramakum indallahi atqakum li ci am solo moo di ragal yàlla gi rekk ak xam yàlla gi du ci melow nit ki wala ci juddoom wala ci am amam walla ci chance walla ci lenn loolu moo tax pour complexe boobu ak yeete googu mu xamle ci ne kon ngëneel du caa génni ñañ jiitu rek ñoo gën ñu mujj diw mel na noo xam ne keneen ku mel ni moom dootu ñëwati gannaawam lu dul Muhammad rasulullah sallallahu alayhi nga xam ne suñu borom dootu yónni beneen yonent wala nit ki couleur am tax na kenn mënu koo jot ci xam wala ci jaamu yàlla wala ci ragal tax mu ne laysa yujibu sawaadul jismi safaahatal fataa wa suu al fahmi ñuuluk deru nit du waral manqué xelam wala manqué ak déggam naka noonu waral man ci njàmbaaram wala ci yewutam wala farloom wala len ñi jiitu ñi dal ngeen warmaal ndax ñoo xoti yoon wi xamal na ko ba nu mën ci jaar ñoo bind téere yi waye nak bu jàpp ne keneen mënatu la ñëw ba tal ñoom wala nga ëpp leen ba mel na ñoom wala nga raw leen moo tax mu ne wala tuxasis fadla rabbin qad ala bi ji taqabbulin faqat fataj ala bul jagleel ngëneelal sun borom bi nga xamne ko magla ñi yag ñu jitu ñi rek ancien rek ci moderne loolu moo tax mu formé ay combattant ay guerrier nit ñoo xam ne dañuy xeex bu xeexu jaahir bi yor daanaay di xeex ak noon yi daan wax loolu formé ay yarkat yoo xam ne ñooy façonné nit ñi melal leen na gën formé ay nit ñoo xam ne ñooy guide spirituel yi gën a éclairé bu nekkoon kon missionnaire boo xam ne bi mu fi ñëwee ba bi mu fi jógee liggéey liggéeyal yàlla rek la fi nekkee ci wet gu nekk sellal nit ñi ci ji koy rëy dindi ko ci ñoom murit dëgg boo gis moo lay gën a woyof dindi kañaan ci seen xol dindi bañante bañ jiw ngir da ngeen di xëccoo dara mu jël ko wala daf la féete kaw ci nangam wala daf la tooñ wala yooyu yëpp luy tardeel nit la luy dox diggante nit ki ak boromam la naka noonu nay nay ak ragal ñàkk daf koy dindi ci xol yi nga xam ne kii nga xam ne jaamu na yàlla ba xam boromam yooyu yëpp daf koy feri bëgg àddina xemam dara wala ragal dara yooyu yëpp daf koy dindi nga xam ne kon ni mu jàppandalee ci seen xol yëkkati seen alal ju leen lew def ko ci yoonu yàlla ak nañ ko ca defee nga xam ne yàlla rek lañ ci jublu te yàlla tax ndax bu dul woon yàlla du ñu jublu loola ba di leen jaral ñàkk seen alal liggéey bu rëy la boo xam ne bu mën a xeet nit ñi la noonu ragal ku la ŋàññ sopp ku lay tagg wala ku lay yëkkati yooyu yëpp ay gal-gal la ci nit ki yoo xam ne day daf koy tardeel dox diggante ba yàlla yooyu yëpp bu dañee ànd nag jëf ju sax ngir àllaaxira jëf ji ngay jëf lépp ngir àllaaxira amal li duniyaaka ka annaka laa tamut abada واعمل لاخرتك كانك تمر غدا كان في حكم اوي مكو واخ نان ني يعني داك اسان يعني تي نبي صلى الله عليه وسلم نان حديث لا نغا جيفل سا ادنا با ملني كودول دي موك جيفل سا الاخره با ملني الك غاي دي نيغا خاني ني بو خام بو وورني الك غاي دي nga gëm yàlla gëm alaaxi xam ne sa jëf rek moo lay wàllu ci bàmmeel ak taxawaay bis penc ba moo lay yóbbu àjjana ni ngay farloo ci jëf kon na nga dëkkee noonu demee noonu boo di jëfi sa adduna it bul jëf ngir sa njëriñal bopp yow kenn na nga jëf lo xamne da nga bëgg mu jëriñ aduna bëpp bu boo fi joggé faatu dem alaxira nit ñi di ci jëriñu njëriñ la jëra fekk ci comme bo doon dund ba faw mooy man di ñàkk fa annaka laa tumut abada nit dañu al harakatu baraka yëngu barke la ba tax sëñ tubaa jangale jëf di jëriñ ba nga nekk nit ko xamne dañ lay gaddu di le wéyaale ngay wéy ci ñeneen mu kooku barkeem lu néew lay doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jamonoom saxaaba yi dañoo tukki woon tukki bu sori bi nga xam ne ñu ngi ci tukki yëpp am waa ji farlu joo xam ne jaamu yàlla rek la doon def boole mu ci leneen bi mu dikkee ñu di ko nettali yonent bi mu ne leen ana kooko daan fegal ay aajoom kooko daan dimbali ñu ne ko ñun ñëpp kenn ku ci daan ko mu ne leen yéen ñëpp a ko gën xam ne kon suñu borom bi mu bindee àdduna namul mu ràkk daf bëgg bi mu joxee nit ñi kàttan ak xel ak ay loxo ak i tànk dafa bëgg ñu jëf li adduna laaj waaye nag ñu jëf ko bàyyi xel ci ëllëg jëf ko ngir yàlla itam ngir du ñuy jëriñ seen bopp ak bu ñuy jëriñ keneen it eh, jëriñ loolu ngir na yàlla tax sëñ Tuubaa dundal yi nga xam ne ama am solo la nit ñi woyofaloon ko doyadal ko ba fàtte ko ni mu def ci alxuraan ak bi mu dikkee ni mu ko fekk te waxtaan nañ ko ay yoon nekkul loo xam ne soxla na ñu di ci tardé mu doon nit ko xam ne dafa bokk ci néew néewi jamono yi nga xam ne jamono day ñëw nit ñi nga xam ne dañuy ñëw si jamono lu néew lekk lekk rek mu di moom kéemaan ci kéemaan suñu borom ni mu ko wax ne bànni li kulli man lahu wilaya kaw ni rabbil alamin aaya moo ko waxal boppam bu mu seetee lépp daal daan gis ne moom royukaay la woon bu mag royukaay boo xam ne day àggale nit ki fa gën a sori ci baax day defar nit ki biir ak bitti addinaam ak alaxiraam ci biir ak ci biti ci àdduna ak ci alaxira ba nga xam ne du yëg lenn lu ko manqué du yëg lenn lu koy metti fenn wala muy rëccu lenn wala muy naqarlu lenn loolu mooy nit ku mat buñ ba dégg ne al insanul kaamil mooy nit ku nga xam ne transcendé na maanaam féete na ko yooyu yëpp ba nga xam ne amul dara loo xam ne teewam dana ko dëkkloo wala ak ñàkk ko dana ko naqari wala mu di ko jàqloo wala mu di ko féete fenn ci wàllu xolam kon képp ku ko xamoon ni mu jëriñoon ak ni mu yare woon ni mu dajal noonu la bindee bàyyi fi lépp ay nit ñoo xam ne dafa bëggoon ñu toog fii ñoom it di yare ba faw ko defee day mujj too ko yëpp am yar boobu le ndax yàlla kenn la waaye yoon yi si jëm ne ñu ngi toll ne nooy bindee fii kenn ku nekk ak sa méthode kenn ku nekk ak sa expérience Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu ni nga xamee ne ci ñu ñu xamagun ci xutbul xaw yu mujj yu fess yi nga xam ne su borom woote loo ne leen ba sant leen ko méthode dam wuute naag méthode yooyu yëpp ni nga xam ne noonu la xutbul xaw di fi bàyyee wird muy àggali bàyyee rek fi wird ba noppi am yeneen méthode yoo xam ne leneen la fekk nit ki na ko xam te ko waaye nag ah, jamono doy waar wala si tam rek da ngay waaru farlu bu sax jëkkanteeg sa dig digu faatu dig kenn xamul fu mu toll mën na jege mën na sori waaye li gën a takku mooy nga fas ko muy jege ngay njëkkanteeg moom def yi la war lépp bu ëllëgee doo rek lépp loo xam ne bëgguloo dee fekk la ngay fexe ba boo koy defit na tuuti boo ko mun la bañ a def ndax ni ko si Ahmadou Bamba waxee nee na al mawtu yaati baxtatan wa rubbama ci bette toujours day bette te lu bari dana dana faral di fekk koo xam ne borom mi soxla la xam ne dox na digganteem yàlla mu mu dee te fekk soxlaa mi yooyu du leen matal doxal na digganteem bu ñu seetee itam impactu muridisme maanaam yoon xam ne Cheikh Ahmadou Bamba moo ko xotti dafa am lu tubaab di dafa am loo xam ne dafa rafet bay xëcc sa xol di xëcc sa xalaat nga di ko xalaat di ko xemem bëgg ca dugg ba dugg ca nga xam ne day xëcc nit ñu bari ndax rafetaayam ndax wóor wóoraayam dëggoom ak yombaayam ak gaawaayam gi muy gaaw jox nit ki li mu soxla li muy wut bu fekkee ne dugg nga nag da nga gis ne li ngay jëkk a gis moom ittewoo gi mu ittewoo yar nit ñi te yar kat lépp lu baax ngi ci yar lépp lu bon ngi ci ñàkk yar nit ki libre lu ko neex def fu ko neex dem ku ko neex waxal ku ko neex àndal fu ko neex yenn fu ko neex ren yàqu-yàqu bu réy ngoog ndax nit dafa gàtt mën nga dugg ci yenn détail yépp seytaane ngi ci moom ci biiram malaakaa ngi ci biiram gaynde ngi ci biiram unda ngi ci biiram till ngi ci biiram jaani ñàngoor a ngi ci biiram mbaam xuuxa ngi ci biiram xaju ngóon buy gëdd ngi ci biiram lépp lu mu dimbalee ci cosaan yooyu rek day daal di fekk loola mel na loola rek yar nag mooy tax mu mucc ci yooyu yëpp moo tax Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu farlu woon ci yar boo wee loolu léegi ak iman bi am maanaam abandon maanaam démission bi nga xam ne moom la parents yi démissionné parents yi ak ñeneen yeneen kilifa yi nga jaar ci mbedd mi nga ci suur rangooñ yu tàng sotti ko ci sa bët yi ndax am naqar ci ni xale yi mel benn nga yërëm leen wala nga mere leen boo gàttee xel mere leen ndax ni ñuy defee boo amee xel nga yërëm leen ndax daa loo xam ne lii dina leen dina leen dimbali gis nga ko amuñu kersa duñu rus duñu ragal duñu warmaal dara fi ñu war a sujjootee lañuy saw dara jaru ko yi xam ne na aara yi ak kilifa yi defatuñu dara bàyyi nañu xale yi nekk ñoom seen ittay bopp rek loolu dana indil seen bopp ak xale yi ëllëg gàcce bari xale yi lu doye di la te ku doye di bu gisee lu ko xaw a yéem lu ko féete kaw wala lu mu ragal rek day dal di imité day dal di roy loola te yi mu gis ci jamono ji di ko rey day tànn yëgale ñaaw day tànn du roy sax même yëfar yi nga xam ne ñu civilisé lañ ñu sell lañ sax def leen sa wàcc yëfar yi gën a suufe ci yëfar yi seenu meleen di tegtale ba di xel ak suufe ak ñàkk maanaa ñooña la ñuy roy góor ak jigéen loolu moo taxoon cheikh ahmad bamba radiallahu taala anhu farlu woon ci yar woote jëme ci yar ba bind téere waxoon naa ne lépp lu mu gis ne nit ñi aajo nañ ko rek bind téere bu gën a yar génération yi mu dajal ak génération yi ñëw njëkk léegi nag bu amul ko yar day sol yére ñàkk kersa daal di rocciku ci boomu xel ak boomu diine dara dutu ko yeew dutu am dara dutu ko diggante nag dara bu ëllëgee mu dajeeg lu koy leer ci lu wane yamul xeyaat ci lu wane dee ku nekk gis la la neex ngay def te àdduna ne ma ne da tax sax àdduna neex àdduna mi ci nekk yëpp lay waaree dara diine nag dëgg-dëgg nit ki am diine diine sax ci xolam ni ko sëñ Tuubaa xam ne mooy sopp mboolem mbindee bi yàlla bind nga gën cee sopp nit diine lislaam nga yëg li ñuy yëg li amee na xam nga bokk ak ñoom ni ko xadis bu waxee mel ne jenn jëmm la nit ñi di cër yi képp koo xam ne ku sopp yàlla nga danga sopp jaamam ñi loo bëgg rek bëgg la ca aju la ca excellence la mu am kon ku bëgg suñu borom tabaraka taala bëgg jaamam ñi ngir moom dafa bëgg jaam ñi nekk ngir moom doo dëkkal kenn fenn doone diw safara la ca xamuloo ca dara ëllëg la te ëllëg yàlla ko xam xamuloo lu muy mujjee yow sa bopp itam bu rafet jot dëkkal sa bopp fenn àjjana wala keneen xamuloo looy mujjee xam la ne jàngale na war naa mbindeef yépp rawatina nag mag ñi maanaam mag ci maanaa ak mag ci at yëpp dafa kenn na nga jëflante ñëpp ak teggin bi gën a rafet te lu nekk ngi ci doomu aadama yi xaritu yàlla ngi ci nekk ngi ci ak noonu kon ñu xool sax borom kanamu borom xam-xam bu jëfe xam-xamam jaamu yàlla la sopp ko sopp yàlla la suñ bi xamle ngëneel yi aju ci xel ngëneel yi aju ci xol xam leen melo yi yàlla tagg xam leen lii tax nit ki ruuxam rëy nafsiyaam rëy am maanaa lool borom tabaraka wa taala yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf wax ne inna allaha tabaraka wa taala yuhibbu maali lumuri wa yakrahu safaha wa yuhibbu safaha suñu borom dafa bëgg jëf yu rëy yi ak xalaat yu rëy yi ak melo yu rëy yi ak jikko yu rëy yi daal di sib يخيبوا ينعك صلي ينعك ما رأي يخمي جم الفن يقول خطي المريد للقادر الباقي المريد عن كل مريد بلا سوى معلم نتي حات لي كده مريد فقم مريد أب مريد أب مريد نور مريد ما يكون خمي يلا بعوض صف ما يكون ير يلا بعوض ليوت بعوض في الله تا ليوت يلا يلا بعوض يلا مريد ما يكون فتير نور dara sëfu ko du sonn ci lu baax du jóg ngir lenn lu baax amul yéene amul dara dafa fetteerlu ne mu wërta jëfandikoo mërirandoo moom mooy jéemul a xam ci li mu nekk dara jéemul a seet dara bu ñu rëg rëgee rek jëm ci mu muy jëf du ca am lenn loolu nag la bi wax ne aw bindam lu muy bind dana fegal loolu ki ko jàng te jëfe yaqulu xatiya al murid lil qadir al baqi al murid nee na sama bind bi dana wam nag murid bi murid bi waxuma marid bi waxuma murid an robi murid bi lay wam nag ba ci suñu borom tabaraka wa taala moom mi xam ne moom yëpp te du si jóg mukk te lu nam rek am lu nam am zax jaxan kulla marid muy sëriñ képp kuy marit bi ma waxoon ak képp ci ki ma xamal ki nga xam ne man jàngal naa ko ba mu génne sama école marit boobu dafa suñu doon dafa ko koy soril du jaxasoo moom du ko bëgg marit bi it koy ragal du jaxasoo moom ndax melo mu amee ak yi muy digle ak yi muy tere ak xolam attanul bàyyi ko ndax xolam dafa entaché maanaam dafa tilim ak salte bàkkaar ak bëgg lu koy lor ba nga xam ne bu jubee ki nga xam ne mooy nit ki jub tey jubal moom bu naru la jub daf koy ragal ni ngay ragale safara la mari nag yàlla dëgg ba ragalatoo dara jege ko la mooy jege yàlla jege koo xam ne mooy am na ko waxee sànq rek amatul lenn looy yëpp lu mën a def jeexital ci leen jeexital daf ko dàq dafa téere tafsir boobu dañ ko baa bind dañ koy waxati xam le na ne tawxid maanaam nangu ne tasir amul amul dara luy jeexital suñ borom rek moo am aada ji muy jëflante nit ñi nit ki bu ñu daggee baatam rek yàlla rey ko su xiifee su lekkee rek yàlla suural ko su maree su naanee yàlla mandil ko ndox mi màndalu yàllaay màndal ñam bi reggalu nit ki ko dal muy tawat ji wala lu mu doon tax mu dee loolu réew ko yàlla ko waaye nag dafa am majaas gannaaw ci àdduna la ñu bind ci suuf si nga xam ne dafay matériel suñu borom bind ko teg lii matériel ci koom takk ay yoon takk sabab lu nekk mu sabab da koy sababal ngir ñu mën a tëral sharia parce que fekkonte ne suñu borom sàkkul benn kiiraay sa digg ak moom mooy def li ngay jëf sa loxo mooy yëkkati dal te fekk yow yëkkati woo ko boo dóoree kenn kenn du leen atte kenn tribunal du leen atte ndax teyu ko defu ko yàllaa ko def léegi ci dëng dem di def li ñu tere muy naan sàngara wala muy lekk mbaam wala muy def lu ko neex boo ko waxee mu ne la yàllaa ko def man jëfuma ko loolu moo tax suñu borom sàkk kiiraay sàkk sabab yi teggin yi nit ki nak moy jaaré ci sabab yi li nga bëgg nga jaar ci sabab ba def ko loolu moy teggin ci sa digënté ak sa borom fa nga xamné kon euh bu ngay jëf jaar nga ca teggin ya suñu borom nak tollu la fofa jëf tawhid bi nak moy nga jëfandikoo teggin yoyu waye mu leer la né rek yalla yàllaay jëf amul dara lu mëna jéxital manam lu mëna a influer ci dara amul lepp rek yalla mo laq na fofu ci gannaaw yowmal xiyam la kàttan googu di feeñ lépp feeñ yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni an naas niyaamun fa ida maatu nit ñi dañuy nelaw waaye bu ñu deexee yeewu loolu wone na ne nit ñi lu bari ump na leen léegi lu bari nëbbu na ci ñoom lu bari ump xamuñu ko te bu keroogee ba kiiraay yooyu dañ lépp feeñ ñu jànloo dëgg dëgg yi nga xam ne mooy li li réel te du dañ te sax ñu dajandoog loolaat boobaa baax nit ku nekk da am seede waaye soxla woo seede ni ko alquran waxee yow ci sa bopp yaay sa seede sa bopp da ngay jàntloo jëf ji nga jëfoon ba nga koy jëf ak na nga ko jëfe woon ak fu nga ko jëfe waxtu yi dana la seede béréb bi dana la seede waaye seede yooyu yëpp teewul yow ci sa bopp ni ko alquran waxee yow ci sa bopp doy nga seede xisaab sa bopp ànd ak nag xam gi nga xam ne moom yàlla moom xam na ko gën koo xam bërëb bi ko seede gën koo xam waxtu bi ko seede gën la koo xam yow mi ko doon jëf loolu yëpp ngir saxal lay wi ci sa kaw la bu fekkee ne loolu xam nañ ko daanu bàyyi xel ci bu ñuy jëf ak bu ñuy wax léegi kon ñaari ñaari laaj yooyu jeex na ñetteelu laaj bi moo di lu jëm ci ñaari rakkaay yi xam ne ñu ngi koy célébrer ak mu nekk di ko def te mu di ñaari rakkaay yi sëñ Touba julli woon foofu sëñ Touba fi mu julli ci réew mi bari na béréb yu ju yu bari daañu wax ne fii sëñ julli woon na fi benn ñu mandargaal ko wala ñàkk ko mandargaal yi ci yëpp li xam yëpp mandargaal nañ ko waaye lan moo tax nag ñaar rakka yooyu moom ñu di ko célébrer def ci loo xam ne defuñu ko ci ci def dafa am mërza li ñuy wax mërza maanaam jëf béréb bi ñu ko jëfee dana ko jox beneen valeur waxtu wi ñu ko jëfee itam dana ko jox beneen valeur saxaaba yi seen jëf yi li tax kenn mënu leen a jot ci jëf dañu jëfoon ci jamono boo xam ne jamono bu spécial du dootul répété mooy temps bi fi yonent bi nekkee sallallahu alayhi wasallam ñoom ñu taxawal l'islam fekk l'islam ñëw fi woon dara ñëw fi woon lu yàlla nangu ñu jaamu ko ca kon jamono yooyu jox na seen jëf yooyu valeur bu tax kenn mënu jëf ba jot leen ci àdduna ci ñuy ñëwaat naka noonu béréb itam sëriñ bi julli ñi mu julli ci ñenn ci béréb yoo xam ne kenn mus fa julli ci ni ñu koy nettalee te xëy na mën naa am ba bésaa di taxaw yàlla mën na dogal kenn dootu fa julli dana jox julli yooyu itam wala kon moom muy zarfu zaman muy zarfu makaan bu ci nekk dana jox jëf valeur wala mu wàññi valeur am bu fekkente ne julli ci boppam day lu gën a màgg ci xeeti jaamu yàlla yi ñi ko ñu waxee ne as salaatu azamul al ibadaati julli moo gën a màgg ci mboolem xeeti jaamu yàlla yi nga xam ne li nekk dana ko jaamu borom mu dellu seet sallallahu taala wa sallam li mu wax ci julli li mu wax naan topploo nañu ci seen adduna jii ñett yëf seen adduna ji la wax waxul ci adduna yëfar yi adduna yi nit ñi daj mu ni soppali ci ñett benn bi ak tayib mooy eau de Cologne wala parfum eau de ngeen xóotalee seen xalaat ngeen gis ne Cologne lu ñu tànn ci biir tànnit la tànn li ca gën a neex xet liggéeye ko noo xam ne dafay tax muy xet bu neex xet bu neex bokk ci teraanga bokk ci lu ñu tànn tànnaat ko comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ñu ko tànnee ci biir ay tànneef muy sopp lu ñu tànn ci biir ay tànneef loo xam ni dañ koo extraire maanaam dañ koo ni ma ko waxee rek dañ koo tànnee ci biir tànneef loo xam ne lii ci adduna bi la ko nit ciy jëfe waaye sallallahu alayhi wa am ci yeneen gisin yoo xam ne amuñu ko ba tax mu sopp ko amul lenn loo xam ne adduna gisee rek la waaye day jàngale ñaareel bi la femme euh, soxna loolu itam boo seetee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanañ indi meññet bu bees mu ñu soog ci garab teg ko ci jëram wala ci kanamam naan maanaam luy soog a ci suñ borom ñu ko xam nañ ne lépp lu am suñ borom ko jëf waaye am na jëfi nit ñi ci dugg garab gi bu ko nit ki it di arrose foofu la ci yem suñu borom a koy màggal ba tuur tuural ko ba génne meññet ni nga xam ne jëfi jaam bi lennam raxu ci noonu nga xam ne jeexit jooju nga xam ne day fàttali wan day teewal ci euh, xelu nit ki ak ci xolam bind bi suñ borom di bind ndax li mu dal di ñëw directement noonu moo ko soppee naka noonu itam ci affaire nisaa bi maanaam affaire femme suñu borom daf ci bind mbindeef bind ci roo muy sam kéemaan koo xam ne day wane tawxid koo xam ne aarifuuna billaahi yi rek ñoo ko xam gannaaw yonent yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee ñaar yooyu bu ko ñetteel mu ne ma ju'ilat qurratu ayni waaye lii sama bànneex li ma sa tëgg li ma gën a tëgg ci lépp mooy julli nga xam ne kon noonu muy teewloo màggu suñu borom ak xereñam ak bindam ci ñaar yooyu passé yëpp